Pastef bi moo ñu boole ay mbokk lañ mais mosuñu gisante. xamante ah, ne moom ay mbokk lañ parce que moom fii leen di tolloon. lii rek moo parti bi. Mm-hmm. liñ ci doon wax. de suuf nañ kii na ne ci kenn du ko dindi ci xol yi. Mm-hmm. yàlla def na wàññeeku bi xam nga nit moom bu wàññeekoo foo toll rek mun nga ñaar. waaye nag boo gisee ñuy ñëw di ak si. ah d' accord d' accord moom pour mu seetloo naqar. moom dégg naa moom tam nekk nit ku baax. muy def liggéey bu am fula ci. mbooloo bi ñu yàlla boole. mooy d'accord ñi nga xam ne bépp mbooloo 14 ans yi ak. amatuñu naan ko réglé. yàlla diaspora. yàlla dafa def tey xam nga ñu gis nga kii ko doog la. ñëpp ñoo bëggoon ña mën a leen dégg. même même man mii sama ñëwoon bëri. ñu ko bëgg a ñëwoon bëri. mais nag kii moom mag bu aljuma moom moo ko essayé ba ko moom. kii nag mooy suñu yaay. mooy yaay Pastef. mooy yaay xarit. wallaahi parce que Pastef xam nga métti woon na. Mm-hmm. kenn amuloon droit di def ay rassemblement.

jox ko bokk. Hmm. parce que ci la bokk yàlla def ma fekk leen fas yéen tam bu seen daloo fa demee donc hmm. fii la dogal suñu xamante hmm. kon ñu góorgóorlu rek te ñu liggéey ci lu dundal parti parce que dund parti bi moo amal Sénégal yëpp importance uh-huh. euh, nañu fexe daal lépp luy dundal parti bi ñu góorgóorlu xam naa ne euh, fas moom lu mu mën a doon doon rek nga def ko fii laaj bale waa ñu Sénégal

aussi c'est un c'est un groupe quand même qui est assez dynamique. donc mm. bañ leen ko waxee ñoom ñëpp. Mm. c'est daal comme ñëpp mënuñ ñëw tamit ñu dajal ñu dajal rek ñëw. incha allah. waaw moom tamit nit ku baax la wax dëgg yàlla nag la. Mm. léeg-léeg ñun xale yi dañuy dal ci kawam lu bëri. te dara maa ngi si yàlla. waaw mais c'est dans le sens de de bien faire. waaw ah, mais vraiment il accepte tout. donc euh, Jolof lañ jógee tey Njum. macha allah. moom mi bi mu fi ñëwee sax fekk na fi mbokkam. kii kii mbokkam moom mii Seynabou bi mu ñëwee kii toog bi ku jigéen kii mbokkam la waaw doomu magam la xaw ma wallaahi wallaahi li <laughs> koy mbiru yaay waaw ikapan man man ka man ko mo gunge yalla daf ma ñew ci kër gi fekk sama bokk kes ñoom fekk sama bokk kes ñoom sama ñaari yaay ñu sey ci biir sama ki dafa ñew rek mu dem nañ dem wallahi wallahi c'est vrai c'est vrai wallahi Sénégal non la def ku fay def bo bo def jamm parce que yow fi tam fekk ma parti ma parti professionnel tout à l'anko yow bokk ba année ba maîtrise wala ma nga sama

Eh, di am mbégte mu rëy rëy rëy nga xam ne foo ko natt rek am nga tey su ma gisee tey ku mel ni Khady Sow mi nga xam ne sama mag sama yaram day daw mm. ku xam fu Jolof nekk mm. lu barki dem maa ngi ñoo demoon ay côté Mbàkke mm-hmm. ah ñenn ñenn ñu dawuñ <laughs> mm. ñu ne ma Mbàkke ñoo nga jëmoon tey waaye ak tawara ñii waaye ñoo ñu àndaloon dañoo mujj dellu. Mm-hmm. kii bi mu ñëwee bi mu ñëwee mu ne ma yow loo ma wax rek ne soldat bi parce que ñëpp dañoo wax wax ma ne leen foog ñu yegg. Mm-hmm. ñu ne ñoo loolu foog ñu ñibbi parce que tàngaay beeg mbóoya beeg mettit bi. Mm-hmm. loolu laa ci doon xool. yërmande boobu rek laa ci doon xool. moo tax dama ne lii bi mu xewee dama ne du ma ko wax kenn kenn kenn kenn du ma ko wax. parce que damaa xam jamono bi fi mu toll ak nit ñi ak korite gii ni ñu am na koo xam ne su xasee ba joxe nga information dégg na ko soo ko gisul suba de mun na jàpp ne ah diw de waxoon naa ko sama nangam bi waaye ñëwul. Mm. daf maa yëgut te fekk na demeewul loolu. Mm. nit ñaa ngi dem bàyyi ku ku la romb ku ne jàppal ni am na ordonnance bu mu bàyyi kër mm. su dul moom kenn ci njabootam nit ñi wéruñu foofu rek laa xoole ba tax nag ma ne woon euh, naa bàyyi ba lii paase jàmm ku am jot. ñëw ko amul jot yi dañ la koy teggil lër mm, mm, mm. waaye nag yàlla def ñii seen bëgg-bëgg surtout Nafi bi mu waxee daanaka moom dafa xaaju bëgg-bëgg bi ak am yéene bi ak euh, relation bi ñu am mu ne lii moom foog mënut a ñàkk fekk docteur bi docteur wooma Sambaka docteur bi ma wooye man a ko ah ñu waxtaan tuuti ma a ko man de su ma sañoon lii bu kenn yëg avant ma koy wax du kenn yëg mu ne ma est ce que yëg yëg la nañ ko ci fente bi man ne ko déedéet ma a ko jaru ko mun ma déedéet te mun naa ne su ma limoon tey ñi ma ko wax est ce que mot nañu juróomi nit mais nit ñi information yi ñooy jàllale ñii di statut ñii di nangam ñii di nangam di nangam waaye di leen masaw bu baax baax a baax di leen sant bu baax a baax xaji xaji di sant bu baax a baax a baax mm. parce que lii man suma ma doyul dara dootuma doy mm-hmm. waaw lii suma ma doyul dara dootuma doy ci àdduna Fatou Sow mi nga xam ne fa la jaar këram nga xam ne su fi nekkoon kenn du ko fi jiitu mm. ki jur papam ak ki jur sama papa ñoo bokk ndey ak baay ñun noonu lañu mel mm. ba pare wëlbatiku xale bi nga xam ne moo fi génn moo génn euh, moo génn àdduna yaayam ki jur papaam Penda Gamo Sidi Gamo Ali Gamo Juma Gamo ñooñu ñoo bokk ndey ak baay kon yaayu papa ki jur yaayu Fatou ak ki jur yaayu sama soxna ñoom ñëpp ak ña ñoo xam ne xamu leen leen ñoo bokk ndey ak kon c'est la même famille hmm. waaw mun naa ni ñaar sans Fat Sow papay Fat Sow ñoo nekk lu déggoo nag ba nga xam ni su suñu kenn amee lu ko naqari keneen ki am lu ko naqari ñoom amuñu woon kii féete fii kii féete fii nit mës naa jóge fële kër sàmm jóge woon Jolof nekkoon ci kër gi keroog ba mu jógee mer ñëw fii ci kër gi sama papa nekk ci munul nekk ak sàmm doo man de. Mm. tellement ñii lañu meloon ba Fatou mii xam na sama kon donc yéen soo leen yëkkati ko ba ñëw man damay am kontaante damay am bëtt mu rëy a xam ne li def nii ko benn yoon yàlla yàlla président Ousmane Sonko moo ñu boole woon kii tàntay Ousmane Sonko yaayam yaayam nekkal voilà donc yaayam moo toog nii. yaayu Ousmane Sonko bi yaayu Ousmane Sonko moo ngi fii ah mu ngi fii tout près donc euh, euh, kooku moo yar Ousmane Sonko moo ko yoroon ah mu bokk ak yaayam day ak bàyyi yàlla defee yéen ngeen déplacé yóbbu fii man taxawaay bi yàlla nañ koy yéex a fayal toog waaw yàlla na ko yàlla fayante waaye lebal ngeen ma it bor boo xam ne ñaan mu yàlla gaaw leen ko parce que lii moom euh, am naa ci yëg bu méttee métti waaw kii nag ki ngeen fekk fii sama xarit la ma paati sama xarit la mën naa ni euh, su ma nee su ma nee sama xarit la sax daanaka loolu wax ju yàqu la parce que ki nga xam ne des fois samay doom école privée laa leen yóbbu woon waaye des fois day jël day jékki-jékki rek dem fay année bi yëpp dem yoon ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mën nañ koo wax ak yoo xam ne mënuñu ko wax kon boobu dañ koy ñaanal yàlla nii la mos a mel kon yàlla yàlla fay na loolu it bëggoon naa ko wax di leen masaw bu baax a baax say na ko moom it ca ca njum la jóge njum la jóge ku nekk xam ne fa njum nekk

donc moom su déplacé wu bu ñëw fii kon kontaante la yàlla yàlla fay loolu daal laa ci boole sànni kàddu si salaamaaleykum wa rahmatulah. di jàng alxuraan di jàng di jàng di jàng di jàng di jàng. ba ci kanam mën a ko mën a ko mën a ko Mouhamed Rasoul xam nga Mouhamed Rasoul laa tudd. bisu gàmmu gàmmu la judd woon bisu ànd dem ci weeru koor yi léegi nag mu ne ma mu ne papa sama métti bii. kii de sama métti bii ma ne ko waaw. man ma su la daloon yow sax da ngay génn nga daw. mag jaa ngi toog. man maa ngi toog ci suuf laal ci suuf ba ci kanam muy jàng alxuraan ba ci kanam sëgg nii nag di wax laa ilaha illallah laa bokk na ci baat yi nga xam ne wax na ko ba mënatul ba mënatul voilà fukki at rek la amoon waaw moo tax gis nga àdduna kenn xamul nan la jàpp ni minute bu nekk seconde bu nekk mm-hmm. dama wax sama benn xarit. man sama kër laa ko xamee sama sët bi lay àndal. wala lay àndal ñëpp ko xam. Hmm. Ousmane lay àndal day ñëw kër ga. jumaa ji jumaa ji moom xam nañ mag ñëpp dañoo jooy. waaw wallaay wallaay. Hmm. parce que ni ma taxee woon. bëri fële foofu la ñuy bëri ba fii. waaw sa yaay di wax léegi nii. sama sama dëkkandoo bi. waaw li mujj nekk yow di nga daaj sa paako. wala hmm. nii laa mujj di def su may waxtaan nii nii day yéeg fii ci kaw yéeg yéeg ci kaw. fan yii la dafa ñëw fii fajar julli fajar ba pare ne ma ne ma papa ma ne ko waaw ñëpp gi toog lu ma lu ma nit ñi ñëwee wuta wax nag moo ma koy wax. bu ngeen a papa gis nga bàyyi di ma yee fajar may dem ci jàkka ji ju julli ba pare yow nga ne yaa ngi julli ci kër gi da ngaa lu yomb trop. <laughs> lu yomb rek ngay wut. allahu akbar <laughs> yàlla la. yàlla la. voilà te su ma xoolee jur doom te duñ ko xam. Mm. su ma xoolee moo ñu su ma xoolee condition yi muy demee. Mm. même da doon woor woor da doon def keroog oh. sama bàjjenam bi dafa jékki-jékki waxtu ñu defar ndogu li mu ne du ma woor sama papa su ñëwul ma lekk. ba bay ñooñu mere ko. mu ne foog sama papa ñëw. Mm. mais condition soo xoolee nee naa fii ci dem man nit ku nekk. Mm. war ngaa jàng ci yu mel ni yu bari. Mm. xam ni ñun yàlla daf ñuy dénk rek. ki la dénk nag. saa yu soxlaa saa yu soxlaa day jël la ko moom te man xam naa ne sama xel dal na ci moom man sama bopp lay xalaat. wax bay que condition amul bàkkaar condition yi mu la condition yu rafet amul benn bàkkaar nit day ñëw léegi yëkkati xaalis may ko mu génn nga yaakaar loolu lay def mu dem jëndal ma ci war ko jënd ci ay suukar ak yooyu yëpp tegal moo tax ma la ñun ko xam fu may dem moom lay àndal keroog bi ma ñu dem boori Jolof fukki ilo saa siib loolu ñu yor da boori bi ñuy dem fukki ilo fële ca boori Jolof moom laa àndaloon fu fu may dem li gën a bari dama ko bàyyi parce que dama gis ni du nit ku ragal. xam nga nit soo ragalul rek man dama lay kii. mais moom ragalul man bàyyam damaa ragal. ay magam dañoo ragal. waaye waaye moom gis nga soo doon wax ak moom nii di ko dóor. wala leneen day taxaw nii lay def di la xool di lekk. day na kooku nag moom da nga koy. moo tax du ma ko joxe. du ma ko joxe waaw waaw waaw. du waaw nattu nag ñëw na. Ah, nattu ñëw na parce que dama ni lu gaaw nag parce que jàngi na wàcc na rek di jox ba mu dugg ci ñëw mu ne ko lan lu lay soxla mu ne ko dafa am ku waaw loolu la ma xale noor. voilà sama sët bi. voilà waaw loolu la ma wax ne dañu koo sànni xeer ci biir. voilà gis nga gis nga loolu. waaw ah, mais xeer la ko am ko sànni. waaw. léegi nag léegi nag loolu loolu muy ñëw ci métti boobu ma yenn yóbbu hôpital ñu def ay rajo rajo mais gisuñu dara ci tànk yi gisuñu inf léegi ñu def ko genre plate xaw ma genre tabax pour taalal tànk loolu nag bokk nañ ci aussi li nga xam ne ko sonal di yuuxu voilà di di jooy di yuuxu di jooy ba ma ne naa ko yóbbu ñu toj affaire mhm. te bu ko yóbboo 4 heures mooy le quart ñu def hôpital ak ñu ne ñu bu leen ko kii yóbbu leen ko fële yóbbu leen ko pédiatrie ñu dem pédiatrie ñu ne benn docteur nekk fa ñu jóge fa ñu ne ñu yóbbu leen ko ñu dem ñu fa benn docteur ne ma ne leen ma ne leen ma ne nañ ko yóbbu ci fa ñu doon tabaxe ñu dindi tabax bi ñu dem foofu yooyu foofu tamit kenn ñëw waaw boobu rek fa ñëw na fa la mujj wàcc liggéey boobu mais daal li mu mën a wax mooy lu mu yàlla fa dem matal na waaw tudd na yàlla ba dem tudd na yàlla ba dem waaw xam naa ne it ci métti la demee mais alhamdulilah alhamdulilah mm-hmm. guddi sax ba lay tëdd guddi pour mu nelaw te indi samay armoire sol sama yére pour mën a mm-hmm. su ma solul sa yére dama nelaw te ma takkoon ñëpp doo ko bi koo wax loolu loolu la lay wax mm-hmm. mu ne mu ne dafa takkoon papa ji dafa takkoon voilà moo tax nag wax yàlla nit ñi aussi ñëw nañu parce que ku xam yi ni mu toll. jumaa ëpp ko Thiès su demee ba jumaa ji fees. waaw fees waaw waaw. loolu loolu loolu. sant yàlla waaw sant yàlla. yàlla yàlla mën loolu nag. dëgg kon dañuy sant yàlla bu baax baax baax yéen it yàlla ñu koy yàq fayam ko. ah nattu la rek boo xam ñu fi jaaroon rek la jàll na. te xam naa ne sant yàlla jërëjëf. waaw amiin amiin. kon jàng Fatiha. Mhm jam ini itu 16 Pak. Jadi